Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ndawi réew mi ca pencum ndawi réew yi ngir càmbar saatu réew mi député yi la ñu convoqué tey ji ci assemblée nationale ngir révision ci constitution bi Sud Quotidien bind ci xëtamu njëkk ne assemblée nationale mooy jano ak boppam convoqué nañu député yi ci session extraordinaire ngir projet de loi bi jëm ci modifier loi électorale bi code électoral bi la ca nekk bokk na ci éligibilité bu Karim Wade ak bu Khalifa Ababacar na bi ne député yu taxaw ak député yu wàllu ñoo ngay daas paaka bañ leen war a rende duudu wàdd ci yéenekaay bi muy wax ne modification yu bay wax ne lépp pexe Macky Sall la ndax donte teg na ci suuf waxi mandat waaye taxul mu génne ci am xelam mbiri pouvoir ci le quotidien moom Thierno Alassane Sall ma ngi fay wax ne bu kenn xaar ci moom mu voté loi bi Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp di leeral ci journal La Tribune ne Macky Sall ay pexe mooy tas assemblée nationale bi ngir nguur gi des ci loxoy waa Benno Bokk Yaakaar ginnaaw élection présidentielle yi 2024 yi réew mi quotidien nañu assemblée nationale bi mu di quatorzième législature bi député ca nekk ñoo ngi dund seen waxtu yu mujj jamono ji journal lay fa ne ko moo taxit bari na ñu yëkkati seen kàddu di sàkku ci député yi ñu freiné Macky Sall gàntal ay pexem bañ woote modification yi ñu wax ci article bu constitution bi bokk ci ñoom Doudou Wade Abdoul ak de loi ci am tàmbaliwul léegi ne amu ci woon président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di maître Oumar Youm ne ñu ci l'observateur retiré projet de loi bi ngir wéy di indi ak dal ci réew mi lu mën a nekk la teg na ci di xamle ne assemblée nationale bi kenn du ko tas président Macky Sall leeral na ko kerak ca kanamu député yu Benno Bokk Yaakaar yi waaye mën naa may opportunité président bi ñëw ëllëg mu mën a tas assemblée bi heure bu ko soobee ñi naan pexe Macky Sall mooy couplé élection présidentielle ak élection législative yi l'observateur nee nañu maître Oumar Youm nee na Macky Sall nee na du ko def ñu def demi tour dem ci journal bés bi le jour ngir wax ci kan candidat bi Macky Sall war a tànn ñeent ñu ñuy wax yéenekaay bi nee nañu Macky Sall envoyé na lañ te Moustapha ngir mu auditionné leen secrétaire général bu AFP di Moustapha Niass bi nee nañu auditionné na Amadou Ba déglu na Abdoulaye Daouda Diallo déglu na Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf moo ci des te moom suba ci talaata ji ci la ko Moustapha Niass a déglu ci candidat yi ñuy wut ki war wuutu Macky Sall le témoigne mi ngi ñuy wax ne Abdoulaye mandat nañu honorable député Abdou Mbow bi muy wax ni mu jàpp ne candidat bi Macky Sall di la war a joxe xalaatam bu nuppi teg na ci ne qualité yooyu yëpp ci kenn rek la gis ne daje nañu ci moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo lango candidat yu Benno Bokk Yaakaar yi mu ngiy gën di yaatu ndax journal L'As xëy na di ñu xibaar ne am na ñu jàpp ci réew mi ni kii di Mansour Faye kenn gënu koo yey ci doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñi gisee nu ni mel la Sénégal nee nañu bokk na ci ay responsable APR yu fare ca Kaolack ca Kaffrine ca Koungheul ak ca Malem Odar ñoo ngi leeral ci biir yéenekaay bi di L'As as fa ñu jógi ba tax ñu jàpp ne ministre transport terrestre ak désenclavement di Mansour Faye moo war a doon candidat Benno Bokk Yaakaar candidat yu Benno Bokk Yaakaar yi direct news nee nañu nañu ci dolli Moustapha Diop ndax moom it ma ngay lijjanti boppam Populi yéenekaay bi ajjuma ji wees rek journal bi nee nañu ma nga woon ca Touba ak ca Tiwaawoon doon fa sàkku ji ñaan ministère microfinance gi mu jiite woon ak financement yi mu doon joxe ci biir réew mi direct news mi ngi ñuy wax ne bokk ci li ko may doole rax ci dollit ku am base politique la ca Louga ñu dem te ngéej ànd ak l'observateur xooli ji fa ay njaboot yuy dund aw tis jamono ji liggéey gi jël ci bakkan ci immigration clandestine gi di mbëkk mi l'observateur nee nañu gox bii di Thiawlène nekk ci Rufisque li mu ci ñàkk ciy doom bari nañu